fas yéene tudde loolee kontaan naa ci loolee te loolee bég ci te ànd ci Abdoulaye Wade moom tim daal di yokko ne bu weesoo ki nga xam ne moom nga ma ko tudde réalisation bu mag bii nga xam xamante ni moom nga def tamit loolee tamit daan naa la siy félicité Abdoulaye na jot na ñëpp daal di joxante loxo ngir nag yeneen réalisation yoo xam ne yu kawe njort lay doon ci réew mi yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na stade bii nga xam ne moom la njiitu réew mi di Macky Sall tabax si Diamniadio Abdoulaye Wade la ñu ko tuddee ni ki suba ci a kaay gi di Les Échos nee na xam ne bopp te dagan ndax lu toll si juróom-benn ci ay njiitu réew jógee ci àdduna bi danañu ñëw Sénégal bëri na ay homme yoo xam ne tamit danañu ñëw waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram ay footballeur waa a waa FIFA kenn du des yéen kaay gi ne ne état bu Sénégal lu jëm ci wàllum immigration bi ñoo koy waajal bu baax a baax journal bi di Walf Fadjri moom li mu xëy fësal ci xëtam mu njëkk a na Abdoulaye Wade ak Macky Sall bii nag mooy dil bu yees yéen kaay gi de Le Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi ak négociation yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal ak syndicat yi yi doon nañu ko def samedi ji nga xam ne moom la ñu génn waaye nag journal bi li mu gis mooy gars yi ba léegi ñoo ngi wërwërloo yéen a kaay gi de la sa nee na waxtaan wi danañu ko waxtaane waat alxamis ji nga xam ne moom la ñu tëg ma la waaye nag waxtaanu tëx noonu la journal bi wax yéen a kaay gi di vox populi nee na état bu Sénégal daan nay teg si taabal ji lu toll ci quatre-vingt-dix milliards waaye nag ñi nga xam ne nag ñooy jàngalekat yi ñoom nee nañu dañuy dem sax ñi nga xam ne ñoo leen yónni waxtaan ak ñooma maanaam ca a kaay gi di ko di ci wax jëm ba tey ji njàng meeg njàngale bi nga xam ne moo si am journal bi na indi nay proposition yoo xam ne gouvernement bu Sénégal defal nañ ko jàngalekat yi état bu Sénégal nee na leen li nga xam ne moom lañ la proposé juillet 2023 la ñu koy def loolee nag la jàngalekat yi àndu la yéen a kaay gi di direct ñëw nag ci li nga xam ne moom la jàngalekat yi di jàmbat ay prime la ñuy jàmbat ak lu jëm ci wàllum indemnité de l'enseignement ñu jëlee ko 50 pour cent bu ko 60 pour cent ak lu jëm ci wàllum yokk indemnité de contrôle yi ak encadrement yi ko 100 pour cent indemnité de recherche yi sawru seen nee na en tout cas daal ñoom seen bëgg-bëgg yu yees yi su benn accord boo xam ne état bi signé na ko si maanaam grève bi danañu ko bàyyi waaye nag li nga xam ne mooy accord 2018 yi loole nag état bu Sénégal daf ko war a jëfee yéenekaay gi di Rewmi Quotidien L'Observateur wax nag ci manifestation bi nga xam ne ànd sàmm jikko yi niki démb doon nañu ko amale ci place de l'Obélisque ñoom nag journal bi nee na ñoo ngi sàkku nag askan wi voté sanction ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi nga xam moom la ñu dëgmal yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy ànd sàmm jikko yi ñoo ngi teg pression gouvernement bu Sénégal ak Assemblée nationale yéenekaay gi di enquête Abdoulaye Sow mi nga xam ne mooy maire bu Kaffrine moom nag daan nay innové ndax dafa jël conseil municipaux yi andi leen sali dafa ab séminaire ci lu jëm ci gouvernance territoriale yéen kaay gii ko di cee xëy di ñu xibaar naan ñu ARMP ñi nga xam ne ñooy saytu lépp loo xam ne jëm na ci ni nga xam ne ñoom la ñuy joxe marché yi daan nañuy càmbar nag mairie bu Mermoz Sacré-Cœur waaye nag nee nañu Barthélémy Dias liggéey bu rafet la def lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum gerte bi journal bi nee na bi ren dara baaxu ci ñi nga xam ne nag ñooy waa la ñu joxar bi baaraamu tuuma ne nag njënd ak njaayum gerte mi su baaxul su yàqoo waa Sonacos la yéen a kaay gi de la turbina xëy duñu naan ñu patron télé yi si Sénégal jamono ji mere nañ loola ñi nga xam ne ñooy waa RTS ndax nag nee nañu dafay am ay événement national yoo xam ne intérêt réew mi la télé yëpp war koo jël war koo direct waaye nag ñi nga koo nangoo ñi nga xam ne nag ñooy waa ITV e waa TFM waa Walfadjri waa DTV ak nag waa CTV e ba si seen TV ñoom ñëpp ñoo bind ab communiqué daal di koy signé dàqu ñu sax boycotté li nga xam ne mooy xew wi nga xam ne moom la ñuy waajal suba yéen a gi di réew mi ko di cee xëy nag dañu xibaar lu tey waar loo xam ne xew na ni ki démb ca tribunal ba ndax dafa am benn jigéen boo xam ne moom liggéeyam bi yëpp mooy wër nag ci hôpitaux yi di sàcc ay téléphone waaye nag nañu jëkkër ji mooy rësa la bi ci mujj jigéen ji dafa dem ci hôpital Dantec fa deux cent cinquante mille akub téléphone jël téléphone bi jaay ko boroom këram journal bi nee atte àtte nañu leen ku jigéen ki juróom benn weeri kaso la ñu ko tëj jëkkër ju ñu tëj ko ñetti weeri kaso yéene kaay gi di source nee na njëg yi nga xam ne dafa yokk ba maara détail yi andi na musiba si kër yi ndax nag tension moo am diggante jëkkër yi ak jabar yi ndax nag ñi nga xam ne ñooy góor yi nee nañu jigéen ñi li ñuy laaj dafa bëri jigéen ñi ñoom nee nañu marché ba saa sunu xëyee dara yokk yéene kaay gi nee na sa yaa ngay am jafe-jafe journal bi di sunu lamb xëy nag tënk kàddu yëpp ne combat bi doon dox diggante rëg-rëg ak guy gi rëg da koo déraciner société nationale